Ils m'ont envoyé pour, qu'on te dise que nous t'aimons tous. D'un amour incommensurable. Combien on t'aime, c'est même pas calculable. si c'était de l'argent, ça allait être un compte illimité. Parce que nous, on t'aime comme ça, avec un grand cœur. Moi aussi, je vous aime. Espèce de j'adore vous montrer. <laughs> Dali. Ouais, mais. Oh, ouais. n'est-ce pas oh, Ouais, ton, ton, ton, cousin oui. Ouais, c'est ton cousin Batch Ta mère et sa Badjan. Donc, c'est la famille qualité. C'est la, famille, professionnelle. C'est la famille Ligue. C'est nous, c'est nous. Ligue Sénégal. C'est nous, c'est Voilà quoi. C'est le sang Djoum. Hein, qui coule dans leurs veines. C'est des gambards C'est des, des lions et des lionnes. <laughs> voilà. Est-ce que tu peux arrêter de me filmer là Jamais de la vie. Je vais te filmer 30 fois pendant le ramadan. What mado. Mado. Aïe Mado l'île. collection dédiée à Kumbagao. C'est joli. Qui a fait ça? la mère de Didi, Tata Didi, la maman à C'est magnifique. collection Kumbagao. Wow. collection Kumbagao. Gaolo. magnifique collier ça c'est la xat Will. VIP Gold de Sacré-Cœur. Lifestyle Mamadou Ndiaye. tey yaa tonton Gar mi joxe bleu bi bu la tey jëlee. toujours Noreyni. Noreyni. waay Noreyni collection woon bi non collection Noreyni bi daal. te yow bu ñëw moo sol ko daal. waaw bu ñëw moo sol ko. amul gis nga. Coro. Coro de meeru Dilian Kébé nga ma jox tey. la sañse ni tusu euh, bi Adama Tall bi Serigne Saliou la uh-huh. ñaw bi kat moo ko ñaw sama belle-sœur moo ko ñaw luxury bijouterie Baye ci kër maquillage rafet na tey di grand bu bu benn grand grand ba doyal ma sañse ajaa ni musul moom braque bi ci waar. waaw saam saam dog dogee ko. dog dogee na biir te caaxaanul. biir mbay Mamadou Ndiaye nawoon fa woon bu laal bu bës dañu jóg Mamadou Ndiaye lumière bi foofu la nekkee wul kanam bu désolé bi jàppal ni chaque jour di nga ko def mu ñëw rek te def. rose bi Baye Modou masakan masayanda xanaa di nga andaria jël sama ñëw bi ok Baye Modou moo fi jaar man lañ koy wax léegi commande ko tey dem ngeen gaaw na ko de make-up bi dina glam day salon Ndella et pour les bijoux madame la bijouterie la solution moo jaar fii ak fii moom am na collection collecté bu toj bu ñu génnee voilà thème bi ñoo ma sotati encore Merci.